asalaamaaleykum waa Dakar Midi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax euh, man la Moussa Ndiaye taximan. waaw euh, Moussa Ndiaye ñu ngi la bëggoon laaj euh, sa xalaat ci li ñu tuumaal Sonko ne dafa jaaroon ci benn salon de massage bi ko massé benn masseuse bi ne daf ko doon violé ban xalaat nga ci am. waaw su fekkente ne loolu moom moo ko def mën naa am lu mu koy yàqal en tant kilifa goo xam ne nii dañoo am fu ñu lay séentu ak fu ñu lay xoolee. Euh, ci réew mi ñuy xalaat na yow man ngaa dem ba nekk euh, président de la république euh, dafa am yoo xam ne nii da nga koy moytu su fekkente ne nag yaramam laaj na massage mën naa dem massage mais nag su fekkee ne defee na ko ci moroomu góoram daal ci lay gën a tane en tant kilifa gu bëgg en tant que jiitu réew quoi. léegi yaakaaroon na affaire bi dina ko yàqal bu dee dëgg la. waaw su dee dëgg la nag euh, mën na koo wàññi parce que sénégalais dafa bëgg nit koo xam ne nii daal li muy dox lu ne rek day nekk ci sutura euh, sénégalais dafa bëgg loolu bëggul koo xam ne nii daal day def loo xam ne nii ku ko gis di ko ci xeeb loolu sénégalais yi bëgg ko te mën na koo wàññil dara daal mën na koo wàññil dara ndax euh, njiitu réew du caaxaan daal surtout koo xam ne yaa ngi koy wut buñ saña dañuy am ci yow image bu rafet daal. mais am na am na am na nit diine yi wax tamit euh, normalement jullit warul dem ci foo xamante ni jigéen moo lay bu dee góor la sa mu tane wala bu dee sa jabar la sa mu tane mais comme salon privé la mu dem foofu euh, yoonu jullit bi tamit yoonu lislaam bi tamit est-ce que du loo xamante ni tamit dina ko andil leen waaw xam nga lislaam moom dafa bari ay ponk yoo xam ne ni euh, lu ci bari mën nga cee xool donte ne ñun sunu àll ba soriwut mais su fekkente ne wér yaramam moo ko laaj moo ko laaj ba nga xam ne mënu koo bañ a def lislaam du ko ko mën a aaye bu fekkente ne ñooñu rek ñoo fa nekk bu fekkee góor gu koy def am na nag moo gën mais bu fekkee góor gu koy maase amul te wér yaramam laaj na ko ba mënta ñàkk ba mënta ñàkk ah, lislaam du ko ko aaye ndax ah, comme moom wéradi na te loolu foog mu def ko bu boobaa nag ah, loolaa fay sës mais nag su fekkee sësu fa rek mën naa dem ci góor ñi daal waaw merci beaucoup. man maa ngi tudd Moustapha Sano euh, étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques. alors da dañ ñëwoon fii di laaj leen euh, seen réaction par rapport à accusation yi ñu porté ci Sonko naan dafa demoon ci benn salon violé fa benn gel affaire yi demee affaire yi def toll ci dëkk bi fi ne nii. mais écoutez da ngeen war a xam ne ni euh, Sonko waxoon nañu ko dès le début di ngeen dégg lu nekk di ngeen dégg sax Sonko ab jën la. sax di ngeen ko dégg lu nekk dañ koy accuser lu nekk dañ ko koy jiim mais loolu du dëgg Sonko ba mu fi ñëwee ba tey ñaata ñaata accusation la am munoo chaque jour ñu accuser ko dara waxul dëgg nangam ak nangam il toujours raison kon tey jii nii ñun dañu gëm ni jeunesse bi dañu gëm ni sonk defewul laalewul donc théorie yoo xamante ni dañ ko fi indi bëgg ko fi jëlee bëgg ko téye noot daa di koy euh, jaay doole daa di koy tëj ñun xam nañ lépp Sonko lu muy peser fii nii actuellement ci dëkk bi ci wàllum politique ñëpp xam nañ ko donc boo gisee sax élection yi ñu koy repousser di ko repouser parce que bu ñuy dem si échéance su élection yi Sonko da leen di baat kon donc yii yëpp c'est préparé gis nañu pays yu bëri bu ñu bëggee écarter benn homme politique boo xamante ni dafay peser lourd ay viol lañ koy takkal ak ñoom i seen donc théorie yooyu noonu la ñuy jéem a andi fii nii di manipuler population bi donc ñun population bi du ñu nangu ci manipulation yi ñu ñuy dugal ñun dañu nangu loolu dafa ñu Sonko c'est l'espoir jeunesse bi yëpp la kon donc ñun dañu dañ ko gëm waaw loolu moom moo fi nekk. borom salon bi tamit euh, confirmé na ne effectivement Sonko da doon fréquenté même bu dee réfuté na affaire viol bi mais confirmé na ne Sonko dafa doon ñëw ci salon bi mais est-ce que kilifa bu mel ni moom euh, am na droit euh, fréquenté milieu yi mel noonu. mais foog ngeen comprendre dara peut-être ñun Sénégal suñu culture ñoo tàmmul ay salon de massage ak nangam. nit ku nekk da nga war a dem salon de massage tey jii boo sentiree ni sa yaram dafa nagam parce que y des spécialistes qui sont là-bas ñoo xamante dañu xam corps dañu xam fan lañ lay laal bu ko defee de telle sorte que ni yow bu fekkoon ni danga nekkoon ci pression et tout donc dina di di nga relaxé wu boo demee dans les grandes dans les dans les grands pays comme les États-Unis la France et cetera donc même président yi sax ñoo xamante ni dañ leen di maase kon donc lan moo tax Sonko moom warul dem salon de massage ñu koy maase te ñëpp dañ ko fiy def. waaw man c'est monsieur Lamine Diallo euh, je travaille au port de Dakar. Euh, dañ doon def ñu euh, laaj nit ñi par rapport à accusation bu ñu porté ci Sonko ñu wax ni dafa violé benn femme est-ce que vous y croyez ou pas. j'y crois pas non je ne pense pas que Sonko. vu statut en ce moment au Sénégal muy def yenn affaire bassesse yooyu je ne le pense pas sincèrement je ne le pense pas euh, vu la carrière de Sonko vu son parcours ak fi mu bëgg a dem fi mu bëgg a jëlee réew mi je pense bien que Sonko am na yoo xam ne dina koy dina ko éviter di def je pense bien waaw ci sama xalaat bu gàtt quoi. mais mais borom salon bi la dame qui est propriétaire salon moom génn na ne Sonko sa client am la dafa doon amoon na habitude di ñëw foofu. Mm. Euh, est-ce que loolu tamit. Euh, waroon na ko def par rapport à Stadium et tout ça. c'est normal Sonko c'est une personne c'est une personne qui doit se faire masser c'est normal parce que dafa bëgg dafa bëgg day dund comme ñëpp mais il a le droit de se faire masser comme tout le monde ñëpp ay dem li massage hein ñu gis ñu xam ko ak ñu bañ ko xam am na ñoo xam ne ñu bëri dañu la massage moom il a le droit de se faire masser hein parce que c'est une personne qui a des activités donc su defee ay activités pour se relaxer pour pour pour lii dans dans sa vie il peut se faire il, il peut le faire pense pas sincèrement du point de vue politique Sonko amul intérêt pour di def euh, affaire Basse Sunu Ndaw yooyu je ne le pense pas yaakaaruma ko man nag je ne suis pas politique je ne suis d'aucun parti mais je sais que Sonko warul def loolu te du ko def yaakaar naa ko quoi ci li ma yaakaar waaw waaw. mais du point de vue de la religion aussi am na ñu wax ni. Hmm. jullit amul droit euh, dem ci kii mel ni massage keneen beneen jigéen di la maase. Hmm. yow ban jàngat nga def ci loolu. Eh, à chacun ses ses convictions muy jullit muy chrétien ñun ñëpp fa yàlla la ñuy jëm fa yàlla mais ku nekk ak say conviction quoi donc s'il a fait côté jullit bi ah, aw ma daal vraiment <laughs> loo xam ne mun naa wax Sonko il a fait je loolu moom mënu ma ko si juger quoi mënu ma ko juger sincèrement. mais du point de vue politique aussi de, par rapport à son image. est-ce que hmm. yaakaar nga ne euh, affaire bi quel que soit alpha. mën na ko rapporter dala wala mën na ko yàqal dara du point de vue de son image. mën na ko yàqal. waaw su mais est-ce que la majeure partie des Sénégalais gëm nañ ko c'est ça le problème est-ce que la majeure partie des Sénégalais gëm nañ ko man boog particulièrement gëmuma ko te xam naa bëri naa ci ay morom parce que Sonko du toll fii mu toll nii bëgg jël réew mi ah nekk peut-être tey jeunes yëpp ci Sonko la ñu basé wu je dis que peut-être 60 à 75 pour cent de la jeunesse se base sur Sonko donc Sonko am na loo xam ne du dina ko éviter def pour pour mu ko yàqal di ko gàllankoor peut-être que nag ses adversaires politiques ils peuvent jouer sur la ah pour pour ak def accusation bi je sais pas wala pour fay kenn mu defal ko je sais pas yàlla rek xam lu gars yi di wax allahu yàlla mais man boog particulièrement je sais que Sonko du def yooyu sincèrement et je ne suis pas de Sonko hein sincèrement je le parle je ne suis pas politique mais je ne suis pas de Sonko mais il na je pense que du ko def. mais situation bi nu mu demee nii est-ce que euh, euh, jàpp nga ne à la si c'était à refaire euh, un homme public comme ça connu. qui a une certaine réputation à défendre war na mën a dem ci façon yi mel nii ba ñu ba mu jur li mel nii. si c'était à refaire mais mais c'est sa vie privée xam nga massage vie privée la nga defee ko ci lieu privé donc vie privée la ki ko génnee ak ñi ko génnee am nañu but bu ñu wut peut-être c'est pour ternir l'image de Sonko moo tax ñu wut ko mais sinon ñëppay def massage tous les tous les personnes dañu def massage man mii di wax ak peut-être de temps en temps damay ah? mun naa ko massé sama biir kër samay soxna. mën naa dem ci lieu public yi ma fay mais fekkee massage rek moom fa yóbbu mais Sonko tamit il la ses raisons pour partir pour se faire masser hein c'est c'est c'est ça c'est inné quoi chez l'homme c'est inné. merci beaucoup. nom Moustapha euh, je suis conseiller municipal à Guédiawaye je suis un élément de l'APR pur et <laughs> voilà Guédiawaye précisément à Sam voilà en tant que conseil municipal à Guédiawaye <laughs> dirigé par euh, le maire Alioune Sall ouais. <laughs> aujourd'hui il y a des accusations qui sont portées contre euh, Sonko votre meilleur ami euh, quelle est votre relation déjà, par rapport à ça quand vous avez entendu la nouvelle je risque de vous décevoir c'est vrai je suis de la paire mais les gens disons toute cette publicité là tout ce bruit là qu'ils ont fait autour de Sonko Moi, ça me désole, franchement. Sonko, c'est un humain. Il a des besoins humains qui se peut satisfaire là où il veut. S'il veut se faire masser quelque part, mais il est libre de le faire. C'est un être, il faut que les gens sachent que d'abord, Sonko, ce n'est pas un extraterrestre sorti du ciel. C'est un être humain. S'il a ces besoins-là, mais il peut aller où, euh, là où il veut. En tout cas, moi, c'est l'opinion que j'ai vraiment de cette euh, chose-là. De toute façon, tout cela qui sont en train de s'affairer autour de Sonko et de cette histoire-là font l'affaire de Sonko. Qu'il s'agit des gens de la paire, des gens de Sonko, encore que c'est avec des pincettes que je prends ça. En tout cas, toutes ces personnes-là qui parlent autour de cette histoire-là font l'affaire de Sonko. Point. Donc il y a autre chose à faire, il y a autre chose à dire. Mais Sonko, Sonko, mais Sonko, c'est un être humain qui a des besoins, n'est-ce pas? S'il veut se faire masser, <laughs> mais il est libre de le faire. comme moi, comme notre président. Certainement, il se fait masser quelque part. Pourquoi les gens n'en parlent pas Parce qu'il s'agit de Sonko. Ben, c'est bon pour eux et c'est bien pour nous. Parce que ça fera, Inch'Allah, l'affaire de Sonko. Et je suis désolé pour ça. Je suis vraiment désolé. Mais, euh, Andini, japonais, désormais, euh, homme politique, booy def fais une fréquentation, il faut nga que ci xel Waaw d'accord na parce que homme public nga Euh, mag ñi daan naan fan naan fa yow a egg du man àgguma fa ce qui fait que si tu aspires à prendre les rênes d'une euh, d'un pays dafa am comportement dafa am démarche dafa am colin dafa am fréquentation dafa am dafa am dafa am qui fait que lu bare da tënk même sa besoin bi nga xam ni sa besoin perso la privé da tënk mais ça la ça n'enlève en rien la qualité d'une personne mais suñu société moo doxee noonu c'est-à-dire on n'est pas libre on est même euh, disons otage de notre société surtout bu nuy aspirer di egg seen station yu kawee di on devient otage de toute cette société là mais c'est c'est désolant vraiment doon na neex nit ki si liberté boppam li nga xam ne moo ko moom li mu bugg def mu def ko l'essentiel bu mu def loo xam ni dinañ ko ŋàññ mooy peut-être di verser aussi si bassesse ah si si drogue si sàcc si agression et je pense que quelqu'un qui aspire à prendre les rênes de ce pays là du dugg si loolu vraiment qu'on le laisse vivre ñu am yeneen argument argument sur argument son quand il sort il des arguments même si c'était c'est des arguments yoo xam ne mën nañ ko jël véritablement avec euh, des pincettes mais quand même c'est des arguments maintenant argument sur argument nanu fexe ba woon peuple Sénégal kii mooy Sonko li muy wax ni du dëgg li mu wax ni dëgg la très simple wa ñun li ñu am comme argument lu ñu war a proposer parce que ñun ñoo war a proposer quand je dis ñun je veux dire euh, le parti au pouvoir ñun ñoo war a proposer te lu nu war a proposer bari na déjà jeunesse baa ngi fii emploi les gens en parlent ñu ngi wax immigration clandestine mais il faut solutionner ces choses là plutôt nu bàyyi nu wax waxu Sonko man de vraiment je suis très désolé e que chaque fois Sonko Sonko Sonko noonu xam ni Sonko nit la. sénégalais la bëgg na réew mi nanu wut ay argument yu mën a déstabiliser Sonko plutôt ko di dug verser aussi ay basse quoi waaw vraiment loolu moom je suis désolé je vraiment désolé waaw c'est c'est je mal pour mon pays franchement j'ai véritablement mal Sonko sunu doom la suba bu yore réew mi da mën na nekk sama président nekk président ko ne waa léegi bu nu yàqee deram avant mu koy nekk na et vous croyez que ça c'est sérieux mais c'est pas sérieux alors que tey ñu yore pouvoir bi mais li ñuy dafa yës les gens n'en parlent pas bon de on peut penser que damay kii je suis pas je suis de l'APR bi mu commencé ba léegi maa ngi si nee naa la euh, conseil municipal la mais man xamul lu ma gëmul politique gu dénigrement je crois pas lu ma xam daal argument sur argument la proposer des choses pour cette jeunesse proposer des choses pour le pays ñu avancer te xam ni Sonko doomu réew mi la Sonko du extraterrestre doomu réew mi la mais nan ko waxal loo xam ne moo ko def man bañu ko wax mais waxal lu mu def bul créer loolu c'est pas bien baaxul du yëfu gor